Euh, Pape Modou Fall directeur maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Jili ñu ngi lay fay bu baax di la remercier ci invitation bi remercier auditeur ak auditrices yi ñuy déglu yëpp ci réew mi FM donc effectivement comme ni nga ko présenté euh, ñun ñooy directeur de l'emploi en même temps aussi jiite benn parti politique bu ñuy wax rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor. Euh, nekk aussi coordonnateur coalition républicaine sàmm suñu réew. Euh, Pape Modou Fall yow nga nekk responsable politique euh, fi nga xamante ni moom mooy Diourbel fi la ñuy njëkkee ndax Benno Bokk Yaakaar def na investiture yi investiture yooyu mu def ban jàngan nga ci am. waaw donc yi ñu ci am rek mooy ñun moom comme dañu am cohérence te li ñu ñor mooy réew mi ak ki ko jiitee muy le président de la république nga xamante ne ni moom la sénégalais yi tànn mu mu war a diriger. Mm-hmm. Euh, moom lépp loo xamante ni ci biir coalition bi mu jiitee ñu bokk ci suñ coalition bokk ci muy benn bokk yaakaar. Mm-hmm. comme décision rek dañu obligé conformer wu ci décision boobu respecter discipline de coalition. donc looloo tax choix yi mu def contesté wuñ ko werante wuñ ci amuñu ci benn problème. Mhm. donc au contraire euh, suñu ay énergie dañ koy dépenser ci naka la ñuy def ba mën a am euh, une large victoire au soir du 31 juillet 2022 te yaakaar naa ni ñun loolu rek actuellement mooy suñ taxawaay te ci loolu lañ nekk aussi mooy fexe ba président de la république am majorité très large à l'Assemblée nationale. mais est-ce que euh, yéen Benno Bokk Yaakaar euh, jàpp ngeen ne man ngeen a gagné fi nga xam ne mooy département de Diourbel. waaw absolument bon mën nañ ko a pour man compliqué wul parce que gagné département moo gën a yomb gagné commune bi ah voilà l'essentiel mooy na ñëpp booloo rek doon benn euh, ñëpp sincère aussi ci li ñuy wax ak li ñuy jëf donc bu ko defee. je pense que non li ma bëgg a wax mooy xam nga mbooloo mooy doole l'union fait la force. Mm-hmm. te mbooloo. mbooloo mu booloo lañ moo tax ñuy wax quoi. waaw parce que benn waaye day wax toujours ni stade bu ñëpp dajee mbooloo ma nga fa waaye bu ñu kenn ku nekk ak fi ngay ñibbi. Mhm. ñii ñibbi quartier sangam ñii ñibbi quartier sangam ñii ñibbi quartier sangam. Mhm. waaw voilà par contre buñ booloo ba pare buñ nekkee am mbooloo ba pare booloo. cela veut dire que ñu bokk même objectif bi ñun ñëpp ñu liggéey jëm ci loolu te amul benn tricherie yàlla mën nañoo may ndam quoi. d'accord mais directeur euh, yow nga jiite euh, parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor euh, yow bien vrai que tënku nga ci li nga xam ne mooy décision yi président jël mais da nga yor parti boo xam ne am na ay cadre am na nay ndaw am na ay jigéen ñoo xamante ni ci la ñu bokk ñoom tim ñu def liggéey boo xamante ni bu bu ràññeeku la est-ce que ñoom amul frustration ñoom si non ñun amuñu frustration parce que ñun boo xoolee ñun toujours li ñu demee ci suñ parti euh, mooy concertation loo ci gis dañ koy waxtaanee d'ailleurs à deux reprises def nañ assemblée général ñëpp teg seen bët ñu wax ni assemblée générale d'abord parti bi ñëpp teg seen bët ñu wax ni président de la république Macky Sall la ñuy jàppale ñun ji ñun ku mu jiital ku investir yow la ñuy jàppale loolu déjà je pense que message bi jàlloon na bi loolu weesoo aussi bi ñu créé coalition sàmm suñu réew aussi dañu ñun dañuy taxaw président de la république moo xam renforcer électorat am moo xam aussi vulgariser ay réalisations te comme ci dynamique boobu lañ nekk képp ku nekk ci ñun rek ak lu la mënoon a naqari même bu doonee kontaanoo ci investiture yi da ngay obligé donc bàyyi li nga jàpp pour intérêt wu parti bi ak pour intérêt wu coalition bi pour que ñu mën a am ndam quoi. Euh, euh, Pape du Fall fan yi ñu génn. Euh, dañu déggoon benn soxna boo xamante ni euh, ci mouvance présidentielle la bokk euh, ngeen bokk dëkk Diourbel di madame Aminata taal ay jamono mu jiite woon fii conseil économique social environnemental fan yi si ginnaaw dafa defoon benn sorti mel ni lu dal ci kaw président wax ne démocratie bi ñoo ngi koy ñoo ngi koy piétiner waxoon na tamit ne lii di ay élections législatives nu ne lañ ko mën a tudde ba mu des ay élections loolu yow lan moo ci sa xalaat. waaw sama xalaat moi je pense que xalaat bu simple la li ma wax mooy moom daf ni euh, recul démocratique dafa am parce que li jot am ci élection yi bëgg ko qualifier de non élection voilà man ma jàpp ni raison yi tax mu wax loolu déjà raison yooyu taxuñu parce que li xew lu ko waral boo defee analyse situation bi ñuy dund lenn rekk ko waral mooy am na coalition boo xamante ni. Euh, njuum njuumte yi mu def nangu ko assumé muy coalition Yewwi Askan Wi parce que dañu ñëw di def investiture ñoom ñu juum à deux reprises ci seen ay liste juum yooyu ñu jëm ci seen liste proportionnelle titulaire nag moo leen indee tey ñu am problème bi parce que tey am na yeneen coalition ak yeneen parti yoo xamante ni def nañ seen investiture te amuñu benn problème d'ailleurs la preuve génn nañ ba ñoom ñu ngi seen phase pré campagne pour dugg seen campagne mais ñoom nag ñi nga xam ñu njëkk investir ci seen liste proportionnelle titulaire ku am moins de vingt cinq te nee nañ Sénégal boo amul 25 ans mënoo nekk député ñu constaté loolu notifié leen ko ñu war koo remplacer ñu remplacer waat ko par keneen koo xamante ni déjà nekk na ci seen liste suppléant mm-hmm. waaw mais loolu kay sa va rendre normalement logiquement la liste incomplète loolu la leen constitutionnel wax loolu la arrêté ministériel bi wax donc ñu invalider seen liste boobu comme ni ñu invalider liste suppléant wu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu accepté ko ñoom aussi waroon nañ ko mën a accepté léegi ñu bëgg indi rapport de force créer situation bi nga xamante ne ni seen propre njuumte moo tax ñu am je pense que loolu boo ci bëggee profité naan recul démocratique alors que dafa am ñu juum. ñoom ñu assumer seen erreur donc je pense que loolu ça n'a rien à voir avec la démocratie au contraire dañu bëgg a salfaañe li nga xamante ne nii moo am ci réew mi mooy charte ak texte yi nga xamante ni mooy mooy régir lépp lu élection ñu koy wax le code électoral. mais mais mais sorti euh, madame Aminata Tall boobu gisoo ne dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw. waaw ay calcul politique la nekk ci ginnaaw parce que li nekk ci ginnaaw moom mooy. intérêt personnel am moo ko yëkkati moo tax mu def sortie bi parce que bu doonoon intérêt réew mi te njiitu réew mi tey di liggéey lépp ñëpp teg seen bët mais aussi njiitu réew mi impliqué ko pendant cinq ans mu jël institution bu toll ni conseil économique social environnemental jox ko mu dugg fa ak ay nitam di na mu doon gérer ba mandat am jeex ñu remplacer ko ak keneen moi je pense que kooku li mu waroon def mooy fu mu toog défendre président la république fu mu toog Euh, di accompagner président de la république lu nekk ay choix président de la république lu nekk ay choix am mais tey bu demee ba koy constater cela veut dire que dafa poser acte politique individuel buy wone ni moom peut-être jàpp na ni gisatu ci boppam te contexte bi pour moom politiquement politique politicienne euh, dafa war a def bruit te loolu c'est regrettable te je pense que moom ak âge bi mu am ak li mu jot a dund ci état lépp tey waroon na mën a jël benn recul bi war a mën a comprendre luy war a mën a comprendre reconnaissance boo xamante ni njiitu réew mi defal na ko pour que mu bañ a def cette sortie malheureuse quoi. d'accord mais yéen a ko nekk Diourbel est-ce que euh, Aminata Tall euh, dayo politique euh, bi mu amoon ba léegi euh, am na ko. non bokkuñu nekk Diourbel Aminata Tall ñëpp xam nañu yoof lay voté voté tul Diourbel d'ailleurs élection yi yëpp ñëwul. mais xëy na am na fa militant xanaa. am na ay am di jàmm peut-être ak ñoo xamante ne nii ko am 74 ans nekk ci dëkk da nga fa am ay nit da fa am ay xame da nga fa am ay turandoo danga fa am ay et cetera mais politiquement. du point de vue circonscription électorale bokkuñu circonscription électorale seulement nag ci dëkk ci dëkk ba la nekk te du ma ni amul ñu koy jàppale mais li mu amoon moom c'est clair que amatu ko d'ailleurs loolu tax que participer presque depuis deux mil 2019 ci benn élection élection locale yi di ñëw participer wu ci benn yoon parce que ñëpp comprendre nañ ni elle a fait son train te wax dëgg yàlla donc war na céder la place aux plus jeunes te ci dynamique boobu lañ koy gën a xaar Euh, ñu wax ci euh, élection euh, législative yi gis nañ coow li nga xam ne tey moom moo ci am comme ni nga ko junjee sànq coalition Yewwi Askan Wi ñoom ajuma ji ñu génn di 17 juin dañu bëggoon a amal rassemblement ñu dem préfet tere leen ko ci jour bi am na ñu wàcc ci mbedd mi ba am ñett ñu si jot faatu am ñu bari teg nañ leen loxo loolu ban jàngat nga ci def. waaw déjà un ko ñaawlu parce que buñ sañoon rassemblement ndaje bu amee. ñu interdire kook ñu bañ a interdire donc doo am benn mort doom donc ñi faatu yàlla na leen yàlla yërëm mais aussi ñi faatu comme ni mu ko waxee woon sànq wane na ni encore une fois il faut père de famille ak mère de famille di téye seen ay doom parce que ki nga xamante ni dafa téye ay doomam di leen éduquer di leen orienter participé wul ci manifestation. Mm-hmm. bu fekkente ni dafa bëgg a jariñoo doomi ñeneen pour di leen envoyé ci manifestation ba li leen di arrivé di leen arrivé donc loolu c'est regrettable. looloo tax encore une fois je profit de l'occasion pour lancer message euh, kilifa yi donc nañ xool bu baax seen ay doom ci li ñuy dugg. ak li nga xamante ni ci lañ leen di woote lu ci bari li koy ëmb ba ci biir mooy seen propre intérêt personnel mooy seen intérêt intérêt u ñuy opposé wu ñoo xam bu ñu sañoon président de la jóge fi ñu toog beneen bi expliqué naa ko sànq. mbir bu amee da ngay xam lan moo ko waral li am mooy dafa am coalition boo xamante ne nii dañoo def ay erreur seen liste ñu rejeté ko parce que la liste est incomplète la liste proportionnelle titulaire foofu aussi mooy wax ni ñi naan benn liste la ci njuumte lañ nekk parce que définition list mooy dangay ngay commencer numéroté liste boo jëlee liste proportionnelle bi daal ni 1 2 3 ba 53 bu fekkente ni da nga retourné waat ni un cela la dire que c' est une nouvelle liste. yow jàng nga man jàng naa ñeneen ak ñeneen jàng nañ. bu doon liste bi day continuer numérotation bi day continuer. mais dès lors que waxaat nañ numéro un cela veut dire que on ouvre une nouvelle liste. c' est la liste des suppléants. def nañ erreur def nañ njuumte. seen propre erreur ñoom parce que du président Macky Sall. moo moo leen moo leen moo leen moo leen moo leen poussé ñu investir ko am 22 ans. mais ñoom tamit dañoo jàpp tamit ne yéen euh, seen liste bi warul dem ndax da ngeen a ëppal ay parrain. ñoom jàpp nañ ñi suñ liste ñun warul lem suñ liste bi warul dem muy liste suppléant yi écarté nañ ko irrecevable bokkul par contre lu ñu wax ni dañu ëppal ay parrain foofu aussi il faut nit ñi def attention parce que nit ñi bu ñu mélangé li ëpp solo ci opération bi. mooy ci processus bi mooy les modalités du contrôle du parrainage tey bu fekkonte ne nii dañu contrôler li may wax c'est technique waxuma waxu politique politicienne c'est technique te jusqu'à preuve du contraire na fi nit teg leneen bu fekkonte ni dañu contrôler contrôler cinquante cinq mille trois cent vingt huit kooku d'office dañoo war a no éliminer Benno Bokk Yaakaar mais li am solo mooy ñaata parrainage dañu contrôler c'est ça qui important te loolu moo nekk ci code électoral bi dañ ni ku bëgg bokk il faut nga am temps de parrainage réussir entre 0,5 et huit loolu la wax ku bëgg bokk il faut nga am loolu mais il faut ñu xam ñaata lañ contrôlé ba nga mën a am loolu liñ contrôlé bu fekkente ni dafa nekk 55 327 c'est 0,8 pour cent li wax c'est technique. ok voilà donc loolu la. d'accord mais mais sànq yaa ngi wax ne euh, liste euh, titulaire yi liste la euh, liste suppléante yi liste la. mais comme euh, ki ma la wax sànq madame Aminata Tall ak euh, yeneen juriste ñoom nee nañu euh, liste suppléant bi kese dem wala liste titulaire bi kese dem loolu amul ci sunu loi réew. non astaghfirullah boo demee ci code électoral bi dinañ leen liste titulaire comme suppléant list avec S dafa am liste titulaire am liste suppléant xam nga wax naa la ko sànq ci code électoral dañu séparer titulaire comme suppléant. bu demee lire code électoral titulaire comme suppléant les listes titulaires comme suppléant ñi dégg tubaab xam nañ kon ñaari liste la muy benn deuxièmement définir naa la liste définition liste li ñuy woowee liste demal ci Google nga xool lan mooy liste dès lors que série bi day continuer wala suite bi day continuer on considère que c' une même liste. mais dès lors que te nga wax dëgg yàlla boo nee un fii ni un fële. na nan la nan la benn liste mën a amee deux un. d' accord ah, d' accord euh, euh, d' accord léegi euh, ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoom dañoo defoon seen rassemblement nit ñu baree bari génn ñoom bi ñu woote waatee rassemblement ñu ñu tere leen ko léegi tere googu noonu est-ce que mënutoon a ñàkk. waaw tere googu li tax ñu tere leen ko du lenn lu lañ dugg ci phase pré-campagne. parce que boo dee lire code électoral da nga xam ni élection li ñu woowee élection processus la. te processus ba dafa dem ba ci le jour du dem ba ci après élection fi résultat yi war a génne provisoire résultat définitif bu ci nekk dafa am étape bu muy amee looloo tax ñu naan processus. comprendre nga li ma la wax. voilà processus boobu dafa am ay délai. Mhm. loo ci gis dafa am ay délai am calendrier boo xamante ne ni moom la ñu déroulé. donc comme dafa am ay délai am calendrier boo xamante ni moom la ñu déroulé ça dire que tout au long de ce processus loo ci échappé loo xamante ni nekkul fi mu war a nekk rek. ça veut dire que nëkkatoo ci ci ci ci délai yi nga xamante ni moom la ñu. mais neenañ nee campagne bi ñoom defuñu benn propagande dañu am lu leen naqari di wax li leen naqari. non xam nee nañ sax constitution bi moo leen may ñu ñu marche. non xam nga dafa am ñaari mbir yu am. léegi yow ma laaj la bu fekkente ni nii processus ba mu commencé lu am solo lay wax ñëpp dañuy génn sa mbaxloo dem di wuti ay nit est-ce que jar nañuy wax campagne lan mooy marqué li ñuy woowee campagne électoral bu amul benn act buy marqué campagne électoral mais kon koy tout le temps eh, voilà donc nañ cohérent ça veut dire que am na période boo effectivement pré campagne la du période de propagande propagande bu ñu ko waxee dafa am propagande publique xam nga tey yow boo nekkee acteur politique am say dëkkandoo kenn mënu laa tere wër quartier yi koñ koñ ak quartier yi la wër defu politique kenn mënu la ko tere def mais bu fekkente ni da ngay dajale mbooloo ñu yore seen ay portable yore seen lépp nga naan suñ liste yow yi askan wi ça veut dire que yaa ngi defal propagande période boobu voilà donc looloo tax ñu ne nañ marqué man benn problème bi ma am mooy ñoom lan moo tax bu ñëwuñu ka bàyyiwuñ ba campagne bi ñëw ñu def seen lu leen neex te campagne am nañ possibilité def lu leen neex. ñoom nee duñu élection du am sans ñoom. wax mais day am quand même bon. Ah, mais ñoom nee nañ duñu élection du am sans seen liste nationale. li ma wax kam élection yi huit listes ci bokk huit liste yoo xam ne ay sénégalais ñoo ci nekk huit listes ñoo ci bokk léegi yow huit listes bokk ci. ñëpp ñu validé leen yow nga am sa propre problème ni léegi comme man damaa def erreur am def ay njuumte ci sama liste bañ écarté ma léegi élection du am léegi ana ana ana aar Sénégal ana naataange ana bokk gis-gis ana ñeneen ak ñeneen te ñooñu nekk ay citoyens sénégalais ñoom léegi ñoom yooyu askan wi dañuy isolé wu ni élection di am parce que dañu bloqué seen liste mais quand je pense que loolu xel sax yanu yanuwul maana te nit ñi ñi ngi préparé wu nit ñaa ngi pré campagne ñi ngi dépensé seen xaalis collecté nañ seen parrainage du benn bokk yaakaar rek ñëpp lañ. mais kon est-ce que pour seen propre bëgg-bëgg danañ taxaw ni élection du am. kon yow àndoo ci ñiy wax ne dañu war a dàq élection yi. élection yi kenn waru koo dàq xam nga am réew boo ci nekkee da ngay say ponk li téye république def état de droit da nga koy sàmm aar ko. parce que tey boo ko dam boo ko dàqee ci période bi mais bu ëllëgee les gens vont faire faire ñu ne jurisprudence ba mu amee année sàngam dañ koo dàqoon te loolu c'est des choses à éviter. c' est pas parce que benn liste def na njuumte da éliminer nañ leen que dañu war a dàq élection yi y' a d' autres listes y' ñoom danañ xëy voté ji. waaw mais directeur euh, est ce que jaroon na ñu dem euh, baare nit na ko doo génn këram comme li ñu def euh, Ousmane Sonko Ahmed dara ñoo ngi ko jàppee Géejawaay Déthié Fall ñoo ngi ko jàppee ci siège u PRP. voilà loolu. posé nga question bu am solo man nag je ne suis pas agent de sécurité. maîtriser wu ma ban stratégie les forces de défense les forces de défense et de sécurité les forces de l'ordre am ba tax comportement boobu ñoom ñu déroulé ko comme stratégie peut-être bu du ñàkk boo gisee kenn koo xamante ni am na niveau boobu de compréhension stabilité réew mi jàmmi réew mi ak sécurité nationale ak euh, fexe ba euh, ordre am ci réew mi ñoom force de l'ordre ñu def loolu comme stratégie ñoom ñoo mën a répondre pourquoi ñu adopté stratégie boobu mais man wax dëgg yàlla xawma pourquoi ñu adopté stratégie boobu parce que c'est une stratégie. d'accord léegi euh, euh, Pape Modou Fall directeur de l'emploi coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu euh, le 29 juin bii di ñëw ñoom dinañu amal seen rassemblement wax seen seen seen naqar nee nañu tamit préfet jox leen autorisation ak ñàkk leen ko jox ñoom dinañu wàcc Ousmane Sonko sax nee na ñaari option la euh, président Macky Sall mooy benn mi daf koy jàpp bisi wala mu liquider ko. man daal li ma la xam ba xam mooy période pré campagne lañ nekk éliminé euh, euh, wax nañ bu propagande am gouverneur génn na wax nañ liñ ci jot a wax cour suprême ñëw na artu leen ni leen amul leen roi marche d'accord nga ci. Hmm. donc ça veut dire que à ce ñoom buñ jéemee génn pour perturber buñ jéem a génn pour déstabiliser wala ñu indi Euh, pour euh, indi instabilité ci réew mi bu boobaa force de défense et de sécurité yi nga xamante ni seen rôle loolu la dañ daje ak ñoom léegi nag ñoom ñooy def seen choix entre autoriser wuñ marché bi ñu bañ a sacrifier ay booy di leen génn loo di leen tàlloo ay pneu ak di leen mettre en danger que ñu toog ba campagne bi ñu ngi ñu def seen campagne d' autant plus que ñoom depuis plusieurs mois depuis bi ñu jógee ci local yi nee na ñoom ñoo majoritaire maintenant le président est en de vitesse moi je pense que boo nee yow yaa majoritaire le président en perte de vitesse mu la ni la ba fa mu mujj ci démocratie le peuple s'exprime par les urnes. kese liste dem na. waaw waaw voilà le peuple s'exprime par le urnes vote kese moo ñu ci mën a génne dans tous les cas. te sénégalais dem dugg ci bureau vote yi vote. dañu bàyyi dem dugg ci bureau de vote yi vote. plutôt que ñu nekk dans la manipulation di victimiser wu alors que ñoom ñoo def seen njuumte. d'accord jërëjëf euh, euh, Pape Modou Fall yow yaa jiite parti du rassemblement pour la vérité euh, dëgg moo wóor. Euh, fan yi am na benn coalition boo xamante ni euh, danga dafa am ñoo ko àndal ngeen taxawal ko mu tudd coalition républicaine euh, sàmm suñu réew lan ngeen jublu ci coalition boobu. voilà donc coalition boobu dañ cee bokk ak yeneen chef de parti ak mouvement ñu leen di nuyu de passage lii objectif bi mooy gën a jëmmal taxawaayu président de la République Macky Sall loolu mooy lan mooy kenn ku ne xam na ni njiitu réew mi. vraiment euh, gàcc ngalaam def na fi réalisation yu bari ci réew mi moo xam ci infrastructure mobilité ay pont ay autopont et cetera ay zone économie spéciale ay pôle urbain ay parc yooyu yëpp vraiment mu def ko élargir carte universitaire bi yokk centre de formation yi taxaw fonctionnaires yi enseignants yi gis nga dernier bërki démb ni mu valoriser seen seen ay euh, salaire ak yooyu yëpp mu def ko ñun suñ taxawaay en tant que coalition républicaine mooy gën a wone liggéeyu président de la République Macky Sall muy benn beneen bi mooy aussi défendre ko sur le plan communication pour nit ñi xam ni wax dëgg yàlla liggéey na ci réew mi liggéey bu am solo mais aussi fexe ba ñi nga xamante ne ni ci opposition bi lañ nekk te benn objectif kese lañ am mooy déstabiliser réew mi fexe ba président de la République Macky Sall jóge fi parce que ñoom loolu seen objectif la ñun ñu mën a euh, dressé wu en bouclier pour que en sentinelle pour que loolu quand ñu mën ko barrer peu njiitu réew mi li mu bëgg liggéey ci réew mi mën ko liggéey à tête reposée. waaw euh, euh, directeur euh, président Macky Sall dañu gis ne moom fan yi ñu génn dafa am fukki réew ak juróom yi bokk ci CEDEAO ñoom dañu amoon benn protocole bu ñu defaroon. waaye dañu waxoon ne pour njiitu réew yooyu ñëw signé limitation des mandats maanaam ku ne def ñaari at dem. Hmm. waaye dañu gis ne président yi nga xam ne tey ñoo signé. Euh, président bu Sénégal ak bu euh, Côte d'Ivoire ak bu Togo ñoom dañu signé sous réserve hmm. euh, loolu ñenn ñi jàppee ko ne président Macky Sall dafa bëgg def ñetteelu mandat hmm. yow lan moo ci sa gis-gis déjà une question politique la parce que man ci sama bopp bu mu nekkoon président de la République Sénégal duma ko signé parce que moi j'ai toujours di que limitation de mandat amul sens d'ailleurs Sénégal ñu bari ci réew mi dañuy joxe exemple Paul Kagame ñaata mandat la def te terewul mi ngi redressé réewum kon affaire bi c'est plus question de développement que question de limitation de mandat askan wi lu ñu bëgg mooy ku leen taxaw taxawu seen soxla jël réew mi teg ko ci yoon boo xamante ni boo liggéey kenn ku nekk dana ci mën a gis sa bopp loolu moo ëpp solo que la limitation des mandats ñun suñ partie loolu lañ ma sa wax d'ailleurs j'étais contre le mandat de cinq ans te je pour man nju réew mi élection yi bari na diir bi gàtt na réew mi amul yenn moyens yi euh, def élection yu bari ci benn diir bi amul ñu benn sens j'ai toujours maintenu que pour man mandat bi gën mooy mandat de sept ans je le maintiens beneen bi mooy je suis contre la limitation de mandats parce que en démocratie le peuple doit toujours pouvoir s'exprimer ay urne la mbooloo mi dajee daal di ñun diw la ñuy fal ak élection yi nu mu mën a doon nombre de fois bu mën a doon pour man ça importe peu looloo tax ñun suñ parti loolu lañ mas a jàpp d'ailleurs ci suñ biir coalition muy coalition républicaine sàmm suñu réew li ñu wax tey leer na mooy ñun président de la république Macky Sall moom moo xam ba xam day nekk candidat wala nekk candidat ñun mënuñu koo xam parce que xamuñu lu nekk ci boppam mais li wóor ba wóor mooy bu nee day nekk candidat ñun en tant que coalition incarnée par des hommes intègres li ñu mën a def mooy taxawu ko ci loolu te yaakaar nañ ci dynamique boobu la ñu nekk parce que du duñ ko bàyyi mukk parce que euh, nee na euh, dafay nekk candidat noonu non heure bu nekkee candidat nañ ko jàppale nañ ko ci taxaw te lépp luñ mën danañ ko ci def. kon yow yow bokkoo si ñuy wax ne warut def beneen mandat. bokkuma ci c'est clair <laughs> man kay li ma la wax kay leer na naañ man li ma wax leer na xam nga man waxuma ni dana déposé wala lu déposé waaye wax dëgg yàlla nekkuma ci boppam pour xam ba xam moom bëgg naa nekk candidat wala bëggul nekk candidat d'accord d'accord. voilà dès lors xaw xawma ba xam moom bëgg naa nekk candidat wala bëggul nekk candidat loolu moom rek moo ci mën a prononcé wu mais ñun kii lañ mën a prononcé wu mooy bu décidé moom ba nekk candidat ñun loolu dinañ ko ci jàppale dinañ ko ci jàppale léegi léegi euh, euh, seen coalition bi coalition républicaine euh, sàmm suñu réew fan la jëm ak fan lay yem lan mooy mission dëgg-dëgg mission wax naa la ko sànq pour le moment li nga xamante ni moom lañ tënk ci suñ chart tënk ko ci suñ code de conduite mooy nañ fexe ba li fi njiitu réew mi def comme comme comme réalisation ñu àggale ko ci Sénégalais yépp coalition politique la kon. politique la coalition politique la basé wul ci ay élections législatives ak yooyu et cetera non non parce que ñun ñëpp d'ailleurs ànd nañ ci principe bi ma wax sànq et cetera donc coalition politique la du coalition électorale par contre beneen élément bi nga xam ne danañ ci intervenir mooy fépp fu ñu nekk danañ fa renforcer électorat président de la République Macky Sall kon bu ñu jëmee ci élection législative danañ renforcer Benno Bokk Yaakaar pour que njiitu réew mën a am majorité. waaw mais sànq tamit euh, yéen euh, kero bi ngeen def seen lancement euh, coalition bi dégg naa nga wax ne élection yi bu ko kenn dàq wax nga tamit ne du ngeen nangu dëkk bi kenn du fi indi fitna. voilà yooyu lañ wax mooy li la wax donc élection yi bu ko kenn dàq nañ ko def à la date du 31 juillet dëkk bi bu fi kenn indi fitna parce que ay du yam ci boppu boroom te yaakaar naa ne boo nekkee ci am réew na nga war a ñaan réew mi am jàmm parce que benn réew mënul développer dans l'instabilité sans la paix c'est pas possible il faut kon ñu jàmm ji fi mag ñi xeex pendant plusieurs années mu nekk fi ñu jéema xool nu ñu koy préserver nu ñu koy conserver ba mën a indi naataange prospérité. waaw ci kaw aussi ñun ñëpp ñu jàmmoo parce que mën nañ politique autrement kenn ku nekk politique xëccoo la te xëccoo wax naa sànq ni bi ci ëpp solo mooy ay élections ñëw ñu ni ah, bëgg nañ ñi nekk député population bi majoritairement defuñu politique décidé ci joxe seen choix exprimé wu par les urnes ñëpp war ko accepté ñu delluwaat ci liñ nekkoon ñiy liggéey liggéey menuisier yi dem seen atelier mason yi dem seen atelier tailleur yi dem seen atelier kiñ fal ñu bàyyi ko mu déroulé li mu fal bu beneen mandat jeexee bu peuple bi di changé changé moi je suis démocrate je suis libéral loolu mooy sama gis-gis ci côté boobu. d' accord euh, jërëjëf euh, Pape Modou Fall directeur de l' euh, ñu daal di wax ci li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi gis nañ ne dafa bëri ay njëg yoo xam ne dafa dafa dafa yokk lan nga jàpp ne moo ko moo ko waral. waaw donc crise bi moom crise économique mondiale la ñëpp d' accord nañ ci parce que crise Ukraine am na perturbation jóge nañ ci Covid économie yi jotaguñ leen woon relancer comme il faut perturbation yooyu yëpp am. moo tax njëg yi yokk mais malgré cela état du Sénégal quand teg na disposition yoo xamante ni nii mbir mi ni mu waroon a yokkoo inflation bi ni mu waroon a amee comme ni mu amee ko ci réew yu bari amu fi parce que montant bi ñu daan utiliser pour subventionner surtout les denrées de première nécessité montant boobu effectivement donc yokk nañ ko pour fexe ba ni mu war a yokkoo du ko yokkoo et que population yi toujours dinañ mën a am accès ci yenn produits yi pour gën a mën a euh, euh, dund daal en tout cas dans des conditions décentes je pense que loolu euh, état du Sénégal pose na ci acte fort d'ailleurs boo xoolee jiitu réew mi dernièrement dem na gis président russe Vladimir Poutine pour que ñu xool nan lañ mën a génnee donc ay piste pour que production yi bi fa nekk ñu stocké ko ñu war ko mën a indi Afrique ñu fexe ba indi ko Afrique donc corridor yooyu ñu créé ko te je pense que boo xoolee dernièrement wax nañ ni Euh, rencontre boobu porte na ses fruits d'ailleurs euh, nekkoon nañ en visioconférence avec président Ukraine mm. et que vingt mille tonnes yi nga xamante ni stocké nañ leen Ukraine war lañ leen acheminer vers l'Afrique pour que consommation en blé bi nga xam ne bokk na ci li ñu li ñuy dundee fii Sénégal ak ay engrais yooyu mën a agsi ci biir Afrique pour que ñu mën a euh, wàññi choc bi nga xamante ni. kon da jàpp ne président bi ñu ko defee président Union africaine da nga jàpp ne wane na taxawaay boo xam ne tey Euh, taxawaay pour Afrique. waaw non franchement moom loolu moom vraiment wane na ko quoi honnêtement bépp africain ak bépp sénégalais war na am mbégte ci loolu parce que taxawaayam ñëpp teg nañ seen bët parce que pareille situation nga dem ba Russie quand même renégocier loolu euh, def dialogue au niveau de l'Union africaine invité président Ukraine ngeen wax donc ngeen war a trouver ay solution pour que donc crise bi nga xamante ni mi ngi waaj a am ñu fexe ba du am ñu ñu li ñu war a fournir. quand loolu c'est intéressant d'ailleurs boo xoolee boo lire presse bi gis nga ni Cap Vert déjà mhm. donc crise ba crise bi am na fa te ñu ngi xool luñ ci génne moi je pense que Sénégal déjà situation bi pour le moment jusqu'à présent c'est stable parce que nit ñi ñi ngi daan ñi li ñu daan jënd ñi ngi koy jënd te amuñu benn jafe-jafe malgré difficulté yi am à travers euh, tout le monde le monde entier. d'accord euh, euh, euh, directeur euh, après ñu ñëw ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi yaay directeur de l'emploi waaye yéen seen coalition bi benn question rek da ngeen a tuumaal que Ousmane Sonko ñi si ñi si amee gaañu gaañu. ñi si faatu da jàpp ni responsabilité bi ci waaye wi la. waaw noonu ñun kay waxuñu tudd ñu nag turu kenn parce que coalition la rek mooy coalition Yewwi Askan Wi li ñu jàpp ba jàpp ko daal mooy euh, coalition Yewwi Askan Wi euh, ñoo indi situation bi am. ñi nga xamante ne nii ñàkk nañ ci seen bakkan ak problème yi fi am yëpp ñoom ñoo ko indi te li tax ñu def ko mooy seen propre list kese kese kese moo tax ñu def ko ndax tey bu fekkonte ni jàll nañ perturbation du am. d'accord voilà. jërëjëf euh, Pape Modou Fall mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum euh, réew mi euh, ñu invité Pape Modou Fall directeur de l'emploi ñu wax ci wàllum xëyum ndaw ñi bi nga nekk directeur de l'emploi ak léegi. Euh, ndax mën nga ñoo wax jéego yi nga teg euh, ci lu jëm ci wàllum euh, former ndaw ñi ak insérer leen. ci wàllu insertion ak emploi surtout parce que formation nekkul suñu métier suñu ay mission même bu doonee ni participer à au renforcement de l'employabilité de la population en âge de travail mi ngi ci mais côté employabilité boo ko waxee il faut que employabilité am pour emploi mën a am mooy nit ki nit ki il faut mu am métier wala qualification muy benn mais nit ki aussi il faut mu am ay jikko ak comportement yoo xamante ni bu demee en milieu entreprise bu fa demee dina fa mën a nekk parce que am na ay qualité yoo xamante ne nii bu ñëwee dana danañ ko ci nawee téye ko xam-xam bi rek doyul loolu la anglais di wax soft skills mooy des compétence supplémentaires wala complémentaires yooyu ajouté ci compétences technique yi ñu leen di wooye des compétence non techniques d'ordre comportemental par exemple esprit critique le fait que nga mën a nekk ak nit ñi et cetera. voilà mën a dialoguer nit ñi mën a travailler sous pression yooyu yëpp ay euh, valeur la yoo xamante ni donc day ñëw ajouté wu ci loolu. Mhm. donc bi ñu ñëwee nag en 2020 euh, janvier 2020 euh, donc def nañ fa ñaari at ak 6 mois njëkk a gis comme jafe-jafe en tout cas. mooy gis nañ ni service public de l'emploi bi ni mu war a jegee population yi jegewu ko population yi parce que tey ki dëkk Médina Yoro Fula wala ki dëkk Daara Jolof wala Ranérou wala Mbàkke wala Touba donc amul accès ci service public bi ba bañ na lu bari bu ko bëggee def day obligé jóge fa mu dëkk ñëw rien que pour déposer pour wala ni demandeur d'emploi la voilà <coughs> kon problème boobu lañ njëkk a réglé parce que dañu mettre en place des missions locale pour l'emploi et pour un peu partout à travers pour que demandeurs yi mën a dem foofu chef d' entreprise yi bëgg a adhéré ci convention état employeur mën a ñëw foofu et cetera donc ñu faciliter loolu avec un service de proximité. Euh, bon aussi ñu gis ne am na entreprise yu bari yu nekk ci dëkk dëkkaan yooyu. te dispositif yi existé ñu war cee mën a profité aussi duñ ci profité parce que ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñi amuñu ci accès donc ci la ñu réfléchir ci benn concept de centre d' incubation communautaire commune bi wala département bi day nekk espace d'incubation communautaire boo xamante ni voilà déjà pour leen mën leen a accompagner mën leen a accompagner ci wàllu consolidation seen ay emploi wala permettre leen ñu jëlaat yeneen emploi mhm. ci kaw état accompagner leen ci indemnité bi ñuy jox loolu c'est-à-dire ñu partager charge yi nga xamante ni mooy charge salariale yi wala indemnité yi ñu di jox bi ñu ñëwee donc ñu installé loolu pour euh, gën a euh, service public de l' emploi tey loolu la ñuy wax territorialisation des politiques publiques mmh. moom la wax aussi territorialisation du service public de l' emploi loolu njiitu réew mi dafa ñëw renforcer ko après le conseil présidentiel du 22 avril 2021 par la création de pôle emploi entrepreneuriat tey boo xoolee ci biir Sénégal créé nañ fi au niveau de chaque département am na pôle bu fa nekk muy pôle emploi entrepreneuriat muy 46 pôles mmh. pôle yooyu aussi pôle yi nekkul espace su direction de l'emploi rek mais dañ ko def guichet unique comme ni nga ko waxee sànq. ba lépp loo xamante ni ñor na wala xale bi bëgg na ko. parce que am na ci biir emploi ñoo xamante ni métier lañ amul. kon ñooñu comme ni nga ko waxee il faut ñu former leen. am na ci biir emploi ñoo xam seen ay projet lañ yore dañoo bëgg a entreprendre. te ñooñu il faut ñu financer leen. donc moo tax guichet unique boobu pôle emploi structure yu bari dañ fay daje. koo orienter mën koo conseiller xool par rapport ak li mu bëgg def ci ban structure pour que structure boobu continuer relais bi accompagner ko ci loolu. voilà mais mais mais, mais euh, direction de l'emploi dañu gis ne dafay signé ay contrat ak ay euh, ay convention ak ay entreprises yu mag lu waral loolu. voilà donc convention état employeur existe na depuis plusieurs années. mais bi ñu lancé programme d'urgence bi la jiitu réew mi yokk budget bi. ok muy benn c'est-à-dire boo yokkee. budget bi budget convention état employeur. Okay. convention état employeur existé woon n depuis plusieurs années. 1904 1887 1887 du temps de Abdou Diouf après euh, du temps en 2000 du temps de Ablaye Wade aussi ñu amélioré ko mu ñuy wax deuxième génération tey avec le programme d'urgence aussi ñu amélioré waat ko parce que njiitu réew mi da ko élargir ci secteur yoo xamante ni bokkuñu ci woon agriculture agrobusiness les femmes qui sont dans la transformation des produits locaux ak yooyu augmenter budget bi ba pare daal ne léegi il faut que l'emploi soit plus parce que bu njëkk ba convention stage rek presque la daan ëpp lu muy gérer mooy primo demandeur ak boo yi bëgg a def stage mais léegi dépassé na loolu parce que am nañ possibilité def des contrats à durée déterminée de deux ans loolu moo ko jox impact boobu donc ça veut dire que tey boo yoree sa benn entreprise am ay jeunes yooyu recruter donc jàpp ni man nga am difficulté ci salaire yi par rapport ak li nga bëgg liggéey dëgg dëgg dëgg en terme d'organisation en terme d'organigramme ak en terme de professionnalisme donc soxla nga ay jeunes caméraman ay reporter et cetera boo ñëwee buñ signé convention yi mën nañ la permettre nga jël ñooñu koo ci war a fay 100000 ñu diviser ko par deux nga yor 50 pour cent ñu yor 50 pour cent cela veut dire que charge yi la ñuy pour gën a mën a aider secteur privé national bi à ce ñu créer emploi léegi euh, gis nañ tamit ne euh, direction bi day faral di def. Euh, ay gox yu bare bare yu yu yu yu wute fan yi si ginnaaw gis naa leen euh, Pikine gis naa leen euh, euh, Kër Massar. Bambey loolu pour lan la. voilà donc loolu boo gisee concept boobu ngay wax mooy 72 heures de pôle emploi xam nga nee naa la 46 département bu ci nekk installé nañ fa benn pôle emploi entrepreneuriat. Hmm. léegi ministre bi le ministre Dame Diop ñu koy saluer de passage moom moo am idée comme bañ créé pole yi ba léegi ñu bari dem nañ fa di inscrire en masse te ni ñu war a traité dossiers yi peut-être des na. ñu ni léegi nañ dem ci pôle yi ñu def fa 72 heures yoo xamante ni structure yi bokk yépp dañuy ñëw sur place ñu jël dossier booy yi fa déposé woon depuis création pole ba léegi. ñu jël leen étudier leen. ñi soxla financement ñu jox leen DER sur place ñu woo leen entretien def lépp ñi bëgg a dugg ci emploi salarié avec la convention ñu bëgg dugg ci ay formation ñu xool. PF2E 3FPT ONFP et cetera ak ay yenn structures yi anamoog yooyu ñu orienté leen fa. donc 72 heures yi pour vraiment exploiter dossiers yi ñu jot a déposé ak ñi ñëw ci 72 heures yi pour inscrire pour mën a signer ñoom troisième jour yi soit permettre leen ñu am bon de formation wala ñu am contrat de travail wala ñu signer ay convention état employeur wala ñu am ay contrat d' apprentissage wala ñu am ay attestation de financement seen ay propres projets ñu def ko am réussite. macha allah ñu def ko Kër Massar mu am réussite à partir de demain aussi ñu war koo def Dakar département Dakar jeudi vendredi samedi troisième jour bi nag dañ koy def pour cérémonie bi nga xamante ne nii ci la ñu dajalee booy ñu ñëw signé seen ay contrat ñu marqué wax statistique wax données yi nga xamante ni durant les 72 heures moom lañ fa am comme résultat mais rappelé ni ci 72 heures yi aussi pour plus de transparence ñi fay jot a ak ñi jotoon inscrire ñëpp dafa am benn comité départemental de sélection bu am. boo xamante ne nii comité boobu préfet bi moo koy jiite. mooy jël dossier yëpp woo élus yi woo jeune conseil départemental de la jeunesse ak yooyu ñëpp daje ñu ni ñii kat ñoo ñëw ñu exploité li ñu war a exploité. génne donc PV bi PV boobu la ñuy exploité. pour samedi bu boobu. léegi euh, directeur euh, fi nga xam ne tey mooy 72 heures yi ba tey ci euh, Kër Massar dama gis ne lu toll ci 4000 nouveaux jeunes yoo xamante ni tey. insérer nañ leen. waaw noonu la 4000 nouveaux jeunes ñuy inséré ñii ay formation lañ leen di jox ay euh, sécurité routière ay permis de conduire. ñi ñu jox leen ay formation ci ay métiers avec de certificats de professionnels de spécialisation ay plombiers ay électriciens bâtiment et cetera. Euh, gis naa ay euh, ñiy def. femmes transformatrices. ak femmes GIE voilà les groupements de femmes aussi ñu accompagner leen. ñi nga xamante ni dañu soxla liggéey di ku muy emploi salarié ñooñu ñu dugal leen ci convention. état mais ñi. est-ce que jigéen ñi gis nañ seen bopp ci direction bi. Ah, mais bien sûr ñu ngi ci gis seen bopp parce que tey boo duggee suñ page euh, Facebook di nga gis ni. dañuy accompagner très souvent femmes yi nekk dans la transformation des produits locaux di fa créer emploi dernièrement ñi ngi woon Bambey Bambey séeréer donc former fa femmes yu bëri ci euh, saponification ak euh, javelisation mooy permettre leen à que ñu am ci luñ jàpp loolu lay nekk ci action renforcement employabilité bi quoi des femmes pour pour leur permettre d'être autonome ñu mën a defar saabu mën a defar eau javel di ko jaay ci dëkk bi di ko jaay ci seen biir te loolu gis nañ ne ay exemple yu yu yu pertinent am na ci quoi donc vraiment ñu ngi leen di accompagner ci côté boobu. d' accord euh, Pape Modou Fall yow yaay directeur de l' ba tey euh, euh, maanaam liggéey bi ngeen di def am na solo mais est ce que am ngeen moyen yëpp moo xam maanaam budget bi bi ñu war a li ñu war a dugal dëgg-dëgg ci direction de l' bi état war a dugal foofu est ce que loolu am na. voilà question bu am solo nga posé xam nga budget bu ñu ko waxee dafa am ay département sectoriel ah dafa am pêche am tourisme am artisanat am commerce am infrastructure am yooyu yëpp. am emploi am formation professionnelle kenn ku ci nekk dafa am pàcc bu ñu lay jox ci budget bi mm-hmm. par rapport ak euh, année bi ak euh, li nga xam ne moom lañ lay sédd daal. Mm-hmm. waaw ñun nag li ñuy sédd par rapport ak actuellement suñ mission ak li ñuy liggéey dëgg dëgg dëgg ci réew mi. je pense que bu ñu ko renforcer bu ñu amoon possibilité renforcer ñu. danañ gën a am possibilité insérer le maximum de jeunes mais aussi danañ gën a possibilité taxawu les femmes ci seen autonomisation mais surtout danañ gën a am possibilité enrôler le maximum d' entreprise dans le cadre de la convention nationale état employeur. te loolu je pense que tey ñëpp d' accord nañ ni am na dispositif yoo xamante ne ni wane nañ seen ay preuves. parce ah, que mais mais nit ñi dañuy wax sax ne euh, euh, Pape Modou Fall fan lay jëlee. finance contrat convention yi tournée yi ndaw ñi nga xam ne yéen a ngi leen di insérer tout ça. waaw loolu c'est un budget de l'état de 10 milliards moom convention yooyu ci la presque plus de 400 entreprises yu signé convention yi ci loolu lañ leen di fayee suñu remboursement bi nga xamante ni moom la ñu am. donc ça veut dire que loolu moo ñu permettre ñu mën a jàppale chef d' yi mën a jàppale entreprise yi mën a créer ay emploi mais aussi mën a consolider emploi yi am directement mais bu fekkee seen direction de l' emploi la xam nga dafa am lu ñu wax convention nationale état employeur maanaam mm-hmm. mais bu fekkee seen direction de l' la rek moom vraiment donc budget bi tax mu tourné dëgg dëgg dëgg dëgg peut-être mën naa bañ a demee noonu mais dispositif bi mooy noyewu ci direction bi parce que activité yu bari ci yi def dañ koy jëmale ci loolu. d'accord mais directeur euh, xam nga Sénégal fi toll ak euh, ndaw ñi ni ñu bëree euh, est-ce que direction de l'emploi mënuñu woon koo def rek benn ministère de l'emploi benn yoon. waaw no ah xam nga njiitu réew mii par rapport ak politique bi muy déroulé moom mooy xool nan lay répartir les services ak yan ministère lay créer waaw moi je pense que emploi am na njariñ. am njariñ goo xamante ne nii tey ci sama gis-gis tey bu fekkonte ni nii dañ ko jox ay moyens def ko ministère euh, mu sukkandiku ci texte yoo xamante ne tey texte yu am solo la dana tax honnêtement à que ñu gën a mën a jël en charge préoccupation emploi xëyu ndaw ñi gën a mën a jël aussi préoccupation autonomisation des femmes euh, mais directeur parfois aussi euh, dañuy teg benn direction natal ko budget bu mu war a liggéeyee mais parfois euh, tour bi moo fi nekk mais est-ce que dina accessible euh, li nga xamante ni mooy xaalis bi. waaw bon en tout cas ça dépend xam nga budget budget moom budget la rek budget nekkul xaalis bu disponible. voilà d'ailleurs loolu tax toujours ñuy wax loi de finance initiale. ba pare nga dégg ba ci biir année bi ñu naan loi de finances rectificative ça veut dire que am na lu ñu rey réajusté ci budget bi parce que am na lu ñu doon xaar jotuñu ko am na yeneen contrainte yu ñëwaat yoo xamante ni comme tey ni mu amee ci blé bi ak crise beeg yooyu guerru Ukraine bi sooraale wuñ ko ñu réaménagé génn fenn dugal feneen ainsi de suite donc budget moom toujours jeu boobu la quoi noonu lay fonctionner donc looloo tax ma yaakaar ni euh, priorité yi njiitu réew mi di définir rapport ak sa propre ak contexte bi mooy wàcc ba ci li nga xamante ne nii mooy permettre ñu mën a concevoir budget bi defe ko ci ni nga xamante ne nii euh, noonu lañ ko war a defee par rapport ak contexte bi surtout. d'accord euh, euh, jërëjëf Pape Modou fal yow yaa nekk directeur de l'emploi ñu lay jaajëfal waxtu wi mu ngi jeex yow yaa jiite tamit parti du rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor parti la boo xam ne tey. Euh, ñu bari xam nañ ko ci Sénégal mais est-ce que c'est international fi mu nii. waaw non ñi ngi ciy liggéey na wala mi ngi national ba léegi. mi ngi international parce que am nañ ay militants quand même ci diaspora bi. Mm-hmm. mais ñi ngi ciy liggéey bon tout de même je reconnais que euh, bi des na. voilà mais permettre nga ma aussi ma profité ci tribune bi pour saluer suñu mbokku Jurbel yi. surtout rawatina Touba nga xamante ni vraiment. tey am na kilifa yu bari euh, may ziar euh, le xalif général des Mourides di ziar le xalif général des Baye Fall kilifa yu bari yoo xam vraiment décidé nañ dugg ci rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor ma ci nuyu kuñ ku euh, ku ñuy wax soxna Bintu Mbàkke yàlla di soxna sëñ Fallou Abdou Khadre mm-hmm. imaamu mosquée vraiment moom sëñ Bintu soxna Bintu mi ngi ñuy jàppale bu baax. ci liggéey bi nekk Touba nekk femme transformatrice di ci nuyu aussi soxna Gagne Siri kebe moom aussi nekk soxna sëñ Abo mooy profité ci occasion bi pour ziar sëñ Abo fàllilu moom tamit bu baax di ziar sëñ Abdou Samad ak kilifa yi fa nekk yëpp daal vraiment gis nañ ni daal ñu bari gis nañ ni euh, parti voilà parti rassemblement pour la vérité jàpp nañ ni parti bu am avenir la te aussi leader bi jeune la bu jar a jàppale pour que ëllëg bu ñuy lim parti yi gën a mag ci réew mi ñu mën ko. mais est-ce parti la boo xam ne ma ngi xalaat bis ñëw mu laaj réew mi. mais bien sûr loolu kay je réponds par oui donc loolu moom amul sax jeexi jaaxa je ne vais pas tourner en rond xalaat nañ ëllëg ñu samp suñ nënd comme ni ko ñëpp sampe parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. te bu ëllëgee aussi ki koy yore sénégalais dong lay doon te mën naa nekk n'importe ku nekk. te kii na du ma wax sax risque mais mais mais parti boobu ki ko sos moom yaakaar naa ni bu fekkonte ni exercer le pouvoir. Euh, taxul mu sos ko kon jëruloon muy créer parti mën naa nekk responsable politique rek wala mu dugg ci ay mouvement donc loolu mooy concept parce que réew kuy créer parti rek jàpp naa ne am nga vision am nga doxalin par rapport ak réew mi ni mu war a doxee waaw nit nag mën ngaa bokk ak moom doxalin ngeen ànd bokk liggéey parce que gis ngeen ni lu bari bokk ngeen ko mooy par exemple moi je suis pour le libéralisme. je profite de l'occasion aussi pour wax les libéraux tous les libéraux du Sénégal na ñëpp rangé wu ci derrière le président de la République Macky Sall. oui oui je suis pour retrouvaille bi ñuy wax les retrouvailles de la grande famille libérale parce que tey président de la République Macky Sall la. ñun libéraux yëpp dañ ko war a taxawu jàppale ko mooy suñu intérêt mooy intérêt réew mi aussi boo ko defee bu ëllëgee nag moom bu paree beneen libéral ñëw ainsi de suite ainsi de suite ah, comme ça <laughs> même li président Abdoulaye Wade doon wax naan pendant cinq ans ñu dem cent ans sax waaw d'accord voilà parce que moi je suis vraiment un vrai libéral waaw d'accord mais dootu ko comme yow euh, nee nga da ëllë bis mën naa ñëw nga laaj réew mi maire yi maire Diourbel moom dama ko jëlale kon. non 2014 déjà candidat laa woon kon xam nga ki ne kon candidat 2014 fekk ma boobu ma doon doog a sos sos parti donc kooku maire Diourbel vraiment jël nañ ko quoi. Hmm. voilà donc loolu moom je pense que waxatuñ ay jërëjëf euh, directeur ñu lay sant bu baax a baax euh, di la gërëm di rafetlu aussi sa sa taxawaay si Diourbel sa taxawaay. Euh, si Touba li nga fay def ñëpp ñoo ngi koy yëg ñëpp ñoo ngi koy dégg aussi sa taxawaay aussi ci direction de l'emploi sa diggante ak président Mbagnick Diop aussi. Euh, vraiment euh, <laughs> waaw vraiment mooy nuyu président Mbagnick Diop de passage euh, du MEDES. rafetlu aussi vraiment ouverture d'esprit expérience bi mu am vraiment donc nekk modèle nekk exemple ci réew mi. mooy profité ci occasion vraiment pour nuyu ko wax ko ni ko man rakkam laa wax dëgg yàlla donc. Euh, kontaan naa daal ci moom parce que franchement en plus du fait que mi ngi intervenir bari lu réew mi aussi mu ngi intervenir ci création d' emploi nga xamante ni surtout loolu mooy lim ñuy sant parce que tey créer na mécanisme yu bari yoo xamante ne ni ay jeunes yu baree baree bari ñu ngi fa dem di liggéey loolu rek wane na taxawaayam ak position ci biir Sénégal jërëjëf euh, jërëjëf Pape Modou Fall yow yaa jiite parti du rassemblement pour la vérité dëgg ma wóor yi moo nekk directeur de l' emploi li moo nekkoon seen émission pencum mi muy émission bi am ci rajo réew mi FM moom la ñu invité woon tey mu nekk responsable politique euh, bu ñu ràññee aussi fi nga xamante ni moom mooy ci euh, ci Sénégal rawatina ci ci Diourbel euh, mbokk yi Abdou Khader Seck moo nekkoon ci kàddu gi Mamadou Diaw jàll ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.